tey lan la ñu mën a xaar ci li nga xamante ne parti démocratique sénégalais ak li nga xamante ne Karim Wade fii ak ñu jëm le 2 juin su dee maintenir na pour élection présidentielle. waaw préparer élection yi rek waaj ko continuer wàcc ci terrain bi sensibiliser les sénégalais waxtaan ak ñoom préparer la venue de Karim Wade et puis pare remporter les élections démocratiques. la venue de Karim Wade pour quand. pour bientôt bu ñu jàppee date bi rek incha allah. il sera 2019 ba léegi yéen ngi naan bientôt. waaw xam nga li tax xam nga li tax ñu wax bientôt. Euh... Karim Wade retour am Sénégal warul doon lu yomb warul doon ben affaire bu anodin dafa wara marquer marquer la libération du peuple sénégalais. ak lu ak lu mu marqué nii peuple sénégalais. absolument ci reporte élection yi bëgg nañ bëgg nañ mu marquer ko plus de cent mille fois plus encore événement lañ koy def te jour bobu la sénégalais yi di xamné ñun paré nañ bés am nañ bés te waaj bi jaroon nako parce que dinañ ko woné ba mu mot sëkk. jàpp ngeen ni que Karim Wade suñu demoon élection mën na gagner les élections. il va remporter les élections au la main. comment parce que le peuple 500 000 électeurs yooyu ngeen. 500 000 électeurs dama la wax ñooñu c'est des militants identifiés et identifiables du parti démocratique Et frustré yu ak frustré yu personnellement je reçois tous les jours des messages ay kilifa. si studio bi mun naa la woon ay kilifa wax ils te disent mm. Karim bu ñëwee ñoom moom la ont on ne leur a rien demandé. Et c'est des citoyens sénégalais, nous, c'est des modèles. Et j'estime que la majorité silencieuse des Sénégalais bien que Sénégal, mm. ils ont envie de voir Karim Wade président de la République. ak ñi nga xamante ne tey ñoo bokk benn bokk yaakaar te am nga xamante ne tey Ousmane Sonko lañ naroon votel dislocation am na diggante Sonko ak Diomaye ñooñu tamit dañuy delluwaat comme léegi ñoom Birame Souleye Diop ti sax xam nga seen ay éléments lañu. Birame Souleye UGTEL la ne <laughs> du UGTEL. Ah. ñun amuñu ñun amuñu sikki sàkka. Mhm. le jour où Karim Wade participe à ces élections il les gagne il les remporte au lendemain xam nga lu tax Tange mhm. Karim li Sénégal soxla pour mu dox moom moo ko yor mu wax la benn hmm. sa liggéey bi buñ la si doon bundu xatal si coow si ñàkk xam-xam hmm. du dox dëgg la tey il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut te man maa dëgg Karim mu wax kenn waxul ma wax mu ne man CV laay seet ak nit propriété moralam je ne cherche pas à savoir nangam ak nangam et on l'a tordu la main bu ngeen seetee entourage Karim bi mu nekkee ministre kan moo fa nekkoon policier kan moo fa nekkoon waa PDS à part Bachir Diawara. munoo cité Bachir Diawara y avait l'autre là le gars qui a le truc là. Euh, Boubacar Camara. non Cheikh Diallo. waaw Cheikh Diallo waaw mais Cheikh Diallo c'est pas un politicien au fait. tous ces gens-là yi mu disent ñu nekkoon ak entourage am c'était des ressources humaines de qualité yu Sénégal yu jaar am jaar-jaar muy Abdoulaye Racine muy muy Boubacar Camara muy ñeneen ak ñeneen Bessi la fille de Madiena Douf. Bim mu koy recruter gars yi dañ ko non bu ko recruter parce que opposition la nekk et ce Sénégal a besoin d'un homme boo xam ne tey moom mooy au-dessus de la mêlée pour que ñun ñu mun a jubuwaat boolowaat suñu ko deful réew mi si guuta lay tàbbi te yaakaar sénégalais yi am nañ responsabilité bu mag a mag pour def choix bi de def choix de de de nakala tudati de de sentiment mais nous def un soir de raison te soir de raison bi Karim s'impose